المصطفى مني صلاة تقي ديرا ياتي كما يفدي إلى ناوي الخير على المصطفى مني صلاة تقي ديرا ياتي كما يفدي mbokk yi noo ngi leen di siyaar bu baax di leen jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla màggal gi ñu jub niki suba sunu borom def ñu fekkee ko tatal ko yàlla defal ñu ci ngën gi màggal te ñu am ngërëmal borom màggal gi muy Cheikh Mouhamadul Fadal ñu ngi fii nag ci kër sëñ Mamor Mbacke mu sëriñ Modou moom sëñ Fallou di ko xam ne moom ñun ñëpp ñëw fi ñëw tey ñu ngi ñëw ci sunu wëllëre ak sunu sëriñ sëñ moom Mor mbake mu sëriñ Modou Bousso nekk koo xam ne ku bëgg sëriñ Touba la dal bii ñu nekk nii mu ngi fi dalal waa Boulel Touba Boulel ñu ngi ànd ak euh, ku mel ni Ousmane Sall ñu ngi ànd ak ñi nga xam ne mooy kàbbu ndaw ànd ak ñoom badu Sall ànd ak xale yu buleel yi yëpp ñoom sëñ Mourtada ñu ngi ànd ak ñoom Karamoxo gaay yëpp ñu ngi ànd ak ñëpp daal di ñëw wuyu si fii nii wuyu si gi wuyu fii nag Cheikh Mouhamadul faadal nekk na koo xam ne ci ñun amuñ ci sago ndax Cheikh Mouhamadul faadal sunu borom dafa dogal sama nekk murit yàlla mu ngi ko dogalee ci cheikh Mouhamadul Fadal mu nekk koo xam ne moom cheikh Mouhamadul Fadal ëmbal na ñëpp yërmande waaye rawatina ñun ndax maa ngi seede ci bésu Kazu Rajab bi ne cheikh Mouhamadul Fadal damay wax ne mooy ki nga xam ne laata moom kenn mosu ñoo mayub kiloot fu ñu dem ñu ñuy jox ay dara di ñuy jox dara. te moo tax ñu am daraja kon kooku mooy ma Mouhamadul Fadal xanaa rek ñu jox leen sunu mbokkum taalibe ñu koy wax Ousmane Sall. jërëjëf sëñ abdu comme ni nga yëkkatee kàddu yi rek tey dañu teew ci bés bii nga xam ne day jëmmal màggalu sëñ Fallou Mbacké ah sëñ Fallou nag ku ko xam bokk na ci ñenn ñoo xam ne euh, ci yoonu murit wi. wax dëgg yàlla def nañ ci loo xam ne ku séentu séen ko ku geestu gis ko ku déglu dégg ko ñun nag dañoo jokk ci sëñ Mamor mbàkke comme ni nga ko waxee léegi moom sëñ Modou bu Dieng moom sëñ Fall. kon nag bés bi dañoo jàpp ne suñu bés la ñun jàpp nañ ne képp ku teew ci màggal gi rek ñun nga ko defal si ndax ki ñu yàlla boole nag dafa nekk kilifa gu mat sëkk nekk taalibe bu mat sëkk waaye mat sëkk sëriñ nag dellu doon suñu xarit. kon kooku nag tey moom lañ ñëw teewle si bés bi bokk leseeg moom bés bi nga xam ne bés sëñ Fallou la xanaa kay li ñuy wax rek mooy yéex cee ñëw waaye njëriñ rek a fi ne ñu ngi ñaan suñ borom yàlla nañ ko màggal si jàmm waaye yàlla na yàlla def ñaanim fi ñaan yëpp mu nang ko wisaare ko ah ñu ngi sant bu baax di gërëm bu baax di sant nag suñ jëwrin sëñ Abdou Niang ndax délégation bi ñëw fii tey moo ko jiite te bat bu set noonu la koy defee bu jógee day woo ñëpp day yaatal moom daf ne bu sañoon bu sëñ Fallou wootee Saalum yëpp lay indaale waaye nag ñu ngi koy sant di ko ñaanal moom it yal na yokk ba yëg ko ak ñëpp ñi ñu àndal taxawaay bi rafet na yal na yàlla def ñu yàgg di ko taxawee ci barke Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi sant bu baax di gërëm jërëjëf sëñ Abdou jox sunu mbokk sunu xarit nga xam ne nii moom it luñ xewle mu teew ci di taalibeeb Cheikh Ibrahim Baye ñas ku nekk xamoon ko eh, ci wëllëram diggante mook sëñ Fallou ndax sëñ Fallou ku yaataloon la moo tax ma ne ku xatal rek bokkoo ci sëñ Fallou eh, kàbb bismillah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ah Abdou daal ci liñ mën a wax daal ñun ànd bi fii ci sëñ Mamour yàgg na lool ndax xam naa boobu ay célibataire lañ ba léegi ñu ngi denc ay soxna kon xam nga ñëw bi fii mi ngi bëgg yàgg te lépp a ngi rafet Abdou daal li mën a wax mooy sëñ Mamour ñu ngi koy sant di ko gërëm taalibe nag yomb na waaye taalibe yu mel ni yu sëñ Mamour yi fële ca buleel tànneef lañ fa ku leen gis nawloo leen wax dëgg yàlla sëñ moor moom ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ñun moom daanaka lii moom liñ ciy kii bariwul macha allah. jërëjëf incha allahu li am solo mooy ñëw gi nga xam ne nii indi nañ ko nit ñi li ñuy ñaan sunu borom ci barkeb sëñ Fallou mooy buñ fi ñëw cig neen ñibbi cig neen yàlla nañu duy ci sëñ fallu yàlla nañ géejël ci sëñ Fallou yàlla nañ am ngërëmal sëñ Fallou ndax sëñ Fallou man na lu ne nag. samba du man kanam man ginnaaw mu ne seen bos bokk ci man ci ginnaawam laa doonee murit te moo ma tax di murit moo tax ma xam ni murit ak murit sëriñ fàllu moo ma fal te dañ ne ku falu nag fàtte ka la fal follee ko da la yomb man duma fàtte ka ma fal mooy sëriñ fàllu sëñ bi ñu ngi lay ñaanal sa site bi yàlla na ko sunu borom yëkkati ba muy ay télé télé télé télé ak ay rajo yu bari yàlla yokk sa xéwal noo ngi sant bu baax di gërëm euh, di gërëm ñëpp ñu fi ñëw di ñaan rek ndax yeggaguñ ci bés ba suba ak jàmm la incha allah yàlla nañ ko fekkee tal ko defee ko na nga xam ne ni la ko borom bëggee te ñu am ci ngërëmam. noo ngi siyaaraat di leen ñaanal jàmm te di ko sàkk ci yéen di ñaan sunu borom ñu fekkee màggal gi te ñu màggalee ko. ni ko borom bëggee te ñu ànd cee ngërëmam ñu ngi fii nag ci baas bi nga xam ne fii lañ fas yéene màggalee bés bi bésub Kazu Rajab bi ni ki suba ñu ngi nag maa ngi feggoog sunu jenn jëwrin ji ñuy wax Ibrahima ñaan di taalibe sëñ bi di jëwrinam nu laaj ko nag moom itam sëñ bi noo lay laaj naka ngeen waajee baas bi ak naka ngeen préparé dalal gan ñi ak ni ngeen préparé def ko ay xeewal bernde kaamil yi ak xaside yi nan ngeen ko fas yéene waaje bismillah aousubillahi mina seytaan rajim bismilah rahmaan rahim inna walillah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk internet yi ginnaaw bu leen ziyaare ñu ngi leen di baaloo xaq di leen balaax comme ni ko jëwriñ ji waxee rek mu mel ni ngi fii tey ci forage euh, Belel kër sëñ Mamour Mbacke ibnu sëñ Modou Mamadou Moussa Fallilou di fi defal waajal waajtaay magal Kazu soo déggee waataay màggal Kazu Rajab nag sëñ Fallou euh, moom lañ koy màggalal di kenn ci doomu Serigne Touba di koo xamante ne soo ko labalee bëccëg mu fay la ker nga lebal ko guddi mu fay la euh, euh, ker kooku mooy Mouhamadou Fadal fii nag ñu ngi ci biir baasu Serigne Mamour Mbacke bi nga xamante ne kenn la ci njabootu Serigne Mouhamadou Moussa Fallou fii ci forage ñu ngi fiy def baas bi di ko waajal bis tey jëm talaata bu soobee Serigne Touba Ah, comme ni ko gars yi waxee rek mu mel ni gars yi góor yi gis nga leen ñu nii ci base bi fii la ñuy fanaanee jàng xasida bu subaa la ñuy commencé njàngum alxuraan mi suba ci 9h la ñuy commencé alxuraan mi ba une ñu arrêté commencé njàngum kuréel mi ba 9 si guddi ñu arrêté commencé njàngum xas xasidam ah, aw mi ba ba set noonu lañ ko fas yéene màggale bernde itam ñu ngi ci jigéen ñaa ngi fële ca waañ wa ñu ngi ci wàccaay wi ñu ngi defar yëpp daal ñoo ngi ci gan ñaa ngi commencé ñëw Euh, lu ci nekk rek euh, bu soobee bu buñu ca eggee dinañ ci defaat ay gëstu ak i jàngat euh, kon dañuy taxal foofu rek di wax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf